day wax ne élection yi jeex na jamono ji sax maanaam meerub Dakar moo jàkkaarloo ak yéen di wax formalité rek moo ci des ba tey ci biir journal bi ñu fekk fa Cheikh Gueye maire bu jëppal Derklé nee na bu ñu waxantee dëgg Yewwi Askan Wi maanaam mooy Sénégal Déthié Fall nee na Macky Sall ay mbiram jeex na yéen kaa gi di Sud Quotidien ñu xëy fekkaata Barthélémy Dias daan nay wax ne réinventer Dakar la ñu bëgg Khalifa Ababacar Sall ci l'Observateur daan nay andi ay leeral ci lan moo tax ñoom ñu tànn Barthélémy Dias ngir nag mu daal di jiite liste Yewwi Askan Wi ci diwaanu Dakar Abdou Karim journal bi nee na Barthélemy Diaz ana lan moo tax maanaam ñu bëgg mu nekk meerum Ndakaaru te ñëpp xam nañu ne maanaam nitu fitna la ndax tàmmal nañu ko Barthélemy Diaz nee na en tout cas wax dina bëri waaye nag benn bokk yaakaar ginnaaw élection yi ñëpp danañu xam ne benn bokk yaakaar dee na maanaam dootul existé ti yéen a kaay gi di réew mi quotidien ñu xëy fekk fa njiitul Pastef fa di Ousmane Sonko nee na moom du signé dara du signé dara li nga xamante ni maanaam moom lañ bëgg daal naan xaw ma ay charte non violence xaw ma lan ak lan ak lan lan Ousmane Sonko ne dëgg gi mooy ñii nga xam ne daal moom lañ dénk réew mi ñoom ñoo yeekatu fitna yi te ñoom nag ñoo ñuy attaqué te ñun nag du ñu fi nekk dal maanaam ñu ñuy dóor ñuy bañ a fayu ku ñu dóor ñu fayu Ousmane Sonko nee na nag ku leen xus yi nag fayu leen dóor leen ko maa jéeree Ousmane Sonko ne képp koo xam ne matt na leen maanaam buddi leen bañ yi Ousmane Sonko na mbir mi daal du yomb Barthélémy Dias moom nag daan nay wax bëgg-bëgg bi nga xam ne am na ko bu ñu ko dénkee mairie Ndakaaru lan lay def yéene kaay gi du source xëy nag di ñu na préfet yi ba ñoom ñoo ngi lànk ba tëdd sa naaj wa dogal yi nga xamante ni cour suprême yi jël na ko waaye nag nga xam ne moo doy waar ci mbir yee maanaam cour suprême yi nga xamante ni maanaam ñoo rejeté décision yi nga xam ne préfet yi jëloon nañu ko ba léegi notifié wuñ nag préfet yi yéen a gi ne na préfet yi ñoom nag bu ñu jotee nag notification yi danañu jël mbir mi daal di koy clamé yéen a kaay gi di Dakar Times xëy dañu xibaar naan ñu xalif général Medina Baye nee ma Cheikh Mahi Niass tey jii nag dana dem nag fekk Macky Sall ca palais ba yéen a gi di Sud Quotidien nee na classe politique bi ñoom ñëpp nag ñoo ngi jaaba jonge maanaam di dem ak dikk ca kër Cheikh Mahi Niass yéenekaay gi di Libération L'As Le Soleil ak Le Quotidien ñu xëy fekk fa Anthony Blinken mi nga xam ne mooy secrétaire d'État américain daan nay wax ne nag bu ñuy waxantee dëgg maanaam Sénégal am na démocratie bu dëgër këcc yi ba tey ci biir journal bi nee na nag bëri na daal ay accord yoo xamante ni Sénégal signé na ko ak waa Amérique rawatina nag lu jëm ci wàllum tabax autoroute Dakar Saint-Louis yéenekaay gi de la Soleil nee na lu toll ci cinq cent quatre-vingts milliards dina jóge États-Unis ñëw ci Sénégal alhamdulilah yéene gi nee na lu jëm ci wàllum wér gi yaram gi nag États-Unis dañoo bëgg daal Sénégal nag daal di ci moom boppam yéene kaay gi di réew mi quotidien ak las xëy ci Miss Sénégal Ndeye Saly Diop Dieng ministre bi nga xam ne moom lañ dénk njaboot gi moom nag nee na daal mbiri Fatima Dione daal doy na waar ba nga xam ne yoon nag war na see def liggéeyam yéene kaay gi du l'Observateur ñu xëy fekk fa Amina Badiane moom nag daan nay déposé li nga xam ne mooy ab plainte ci kanamu procureur ndax nag na bëri na loo xamante ni ñoo ngi koy wax daal maanaam ay kàcc du ñu xibaar naan ñu ki nga xam ne mooy Adji Sarr ma ngi jàppale Fatima Jonn lii nag mooy njuuma noo sant mu ne wele yéen kaay gi di enquête xëy di ñu xibaar naan ñu lu jëm ci coronavirus beeg jigéen ñi nga xam ne dañoo maanaam ñi nga xam ne dañoo wanu lor jamono ji nag maanaam ñoo ngi jeexi jaax am na ñoo xam ne dañoo jàpp ne daal ñàkku gënul si ñoom am na nag ñoo xam ne jot nañoo ñàkk waaye nag am na ñoo xam ne ba léegi ay laaj la ñuy def yéen kaay gi di réew mi quotidien ak le quotidien xëy di ñu xibaar naan bandi sàmb surabaali yi nga ne ñoo nekkoon diggante Sinja ak Sanjara ak Ndula di fa jaaba jonge di def li nga xam ne mooy ay ñaawteef ñooñu nag gendarmerie daan na leen di teg loxo ak lu toll ci ñaar ci ay millions ak ay téléphone ak benn oto yéen kaay gi di esat xëy di ñu xibaar naan ñu Premier League Manchester wat Watford daf ko troxalaat dóor ko ñeenti ba ci dara journal bi nag neex na loolee moo tax daal ñi nga xam ne ñooy waa Manchester United mer nañ ba maara détaillé moo tax sax seen entraîneur ba di Solskjaer dàq nañu ko. Société nationale